asalaamaaleykum mbokk yu ñuy seetaan ci seen plateforme Akan Mentor ñu ngi leen di eh, ziar di dellusiwaat tey ci seen beneen vidéo ba tey ci cours bii di Microsoft Office waaw kon tey jii ñu fas yéene jàngale lu jëm ci note de bas page yi donc pour ñu euh, jàngal leen loolu dañu daal di ñëw euh, expliquer leen ko à travers benn exemple par exemple lii benn situation la léegi su fekkee da nga bëgg jë créer lu ñuy wax référence pour. ku ku gis citation bi xam kan moo def citation bi ndax dañuy faral di jëfandikoo ay référence lu bare ci suñu document Word yi donc da ngay ñëw ba ci fin citation bi nii nga positionné wu foofu nga souris bi ni muy clignoté donc nga ñëw ci AB bi daal di insérer une not gis nga automatiquement mu daal di ñëw fii def numéro 1 ni la pour nga joxe note bi par exemple ma def Masaalikul Jinaan livre titré intitulé et cetera gis nga daal di def foofu référence bi donc bu ma ñëwee fii aussi gis naa ni defal na ma ni référence numéro un donc su ma fekkente ne par exemple benn mot laa bëgg laa bëgg référencé wala joxe définition am par exemple euh, exemple je suis en train de suivre par exemple suivre bi nga bëgg a joxe définition bi da ngay ñëw ba ci fin mot bi rek nga cliquer si insérer une note de bas de page donc tout le temps onglet référence bi lay nekk voilà donc nga joxe définition suivre mooy par exemple regarder et cetera et donc mën nga mën nga def fii sa définition bu la neexee donc nga gis ne ajouté na ci benn numéro 2 bu ndaw donc même chose boo ñëwee fii gis nga numéro 2 donc référence bi tout le temps fii la koy indi kon ci bas de page bu fekkee par exemple xaaral ñu dem créer page bu bees ñu ñëw fii par exemple ñu am benn texte. ñu bëgg joxe référence bi ñu ñëw onglet référence daal di ñëw insérer une note de page nga gis ne automatiquement numéro trois la ko jox bu fekkente ni da nga bëgg page bu nekk nga recommencer numéro yi à 0 au lieu à 1 au lieu comme muy continuer suite numéro yi kon da nga ñëw ba ci numéro bi nga def clic droit après nga ñëw option des notes donc boo ñëwee ci option des notes am na fu mu la defal continue donc foofu mooy numérotation continue bi da nga koy changer def. recommencer à chaque section bu fekkee par section nga bëgg di recommencer numéro not yi ou bien nga jël recommencer à chaque page donc boo defee recommencer à chaque page daf appliquer nga gis ne fii automatiquement deuxième page bi note de bas de page yëpp numéro un la koy commencé waatee kon loolu la indiloon tey ci seen euh, fukkeelu cours ak juróom-ñett ci seen plateforme Akan Mentor ba tey ci cours bureautique Microsoft Word